mu naadiyan mu aji xoo xaw ma woon itam wala xaw ma fil xarami ñu ngi ci nuur ci kéeféer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax na fukki at ak ñett ci màkka di xoo nitam ci njub di xoo nitam ci lislaam di xoo nit ci aljana waaye ñoom ña nga ci kéeféer rek laa daal di ko bañal <coughs> sallallahu alayhi wa sallam bañ giñ bañ nag taxul mu découragé wu taxul mu mere leen taxul mu jéppi leen ba bañ leen xoo ci mbaax moo tax ma laakin noo waaye moom yonent bi lam yasal dañut yax foo di xañtu ma waa si moom waaw seen xew-xew ya fu mbooloo dajee rek yonent dem fekk leen daal di leen xoo ci lislaam sallallahu alayhi wa sallam ci wooteem moo doon fekk nit ñi di leen xoo ci lislaam fu mbooloo dajee rek yonent fa sallallahu alayhi di leen xamal ne yàlla ma yónni ci yéen ngi ngeen jaamu ko te bu leen ko bokkaal ak dara yarju mu ngi yaakaar mi ne laay ci yàlla aw na ndimbal xëy na mu tasi mi nekkul aji yokkat nit ñi wedd nañ ko gaa waaye moom mu ngi yaakaar na yàlla dana ko dimbale sallallahu alayhi wa mosul yokkat mosul tayal kon baax ci njëlbeen yaa koy andil nit ñi xamal leen ko jàngal leen ko ngir ñu mën koo jariñoo waaye mbaax boo ko làqee sa ruq rek kenn du ko xam moo tax ñu ci jamono joo xam ne nii ñu ñu baax nëbbatu nañ ñu ne yee dañoo dëddu àddina ñu baax làqatu nañ làq seen mbaax ga nee dañuy bañ ngistal ñu baax làq nañ seen mbaax ga ne dañuy bañ wanewu ñu bon ña di wanewu ñoom fisal seen mbon ga moo tax ñu nekk ci jamono joo xam ne mbon fi gën a fës mbaax rek laa wax de <coughs> ngistal ci xol lay nekk wanewu ci xol lay nekk waaye mbaax kay dañ ko war a fisal rawatina ci jamono ju bon ba ñëpp yàgg ci comme ni ko yonentu sallallahu alayhi wasallam doon defee waaye it mbaax doo ko yor rek yow rek ne lu baax laa amee yàlla dana ma dimbale soxlu ma dimbalu kenn rek laa wax de yonentu sallallahu alayhi wasallam nam daan wootee bokk na ci kuréel gu ñëw rek makka mu xoola gaaral la boppam ngir nga dimbale ko ci lislaam waaw gannaaw boo gëmee yàlla pour mu mën a jot dafa teb yàlla bi yàlla dig na ko ndimbal gaa waaye teewul moom dimbali dimbalikoo na nit ñi ñoom dimbalikoo nag ñëpp bañal nañ ko waaye ñaa jël ndam la mooy waa Medina ñoo ñëw ko nangul kon dem ci ay nit ñu delloo la dem ci ay nit ñu dàq la wala ñu beccingal la bu tee boo yoree lu baax nga tàllal leen loxo mbaa ko ko yore tàllal loxo ñëpp loolooy li war sallallahu alayhi wa noonu la doon def boo tàllalee loxo nag dana am ñu la beccingal am ñu la toroxal am ñu la wuyu waaw ni ko noonu rek defee sallallahu alayhi yonentu baa ngoogu alaaji Maalik ne mu ngay gaaral kuréel yi ci ndaje yi ndaje mu am mu dem ci mbooloo gaaral leen boppam bokk na ci kuréel yam yam doon gaaral boppam mooy banu kalbin yonentu ñëw na ci ab mbooloo moo xam ne ci banu kalb lañ bokk ñu leen wax banu abdoulaye moo xoo jëm ci yàlla gaaral leen boppam ne leen yaa bani abdoulaye yéen doomi Abdoulaye yàlla rafetal na seen turu baay ba tuddee ko Abdoulaye maa ngi leen a woo jëm ci islaam waaye kenn ci ñoom nangulul ko sallallahu alayhi wa mu bàyyi demaat na ci banu xanifa fekk leen fañ dal moo xoo leen jëm ci yàlla gaarale leen boppam pour ñu dimbali ko ñu tontu ko tontu bu bon woo xam ne nii ñooñ siira sax duñ ko nangoo bind ndax ñaaw gim ñaaw dañ naan daal xamut ku gën a ñaaw tontu waa banu hanifa tontu bañ tontu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxul mu bàyyi mu ci banu amir bun sansaa xoo leen ci yàlla gaaral leen boxom benn waaye bu ñuy wax bay xarata moom nag bu xayra la def waaye bay xarata bun firaas benn waaye la ci banu amir ne wallaay xale waxambaane bii su ma ko mënoon nangu ci Quraysh danaa ci lekk àlli arab yëpp moom moom mu yaakaar ne lislaam diine commerce la mu ne yonent bi su fekkee jaayante nañoo ak yow ah ndax mbir mi ci loxo mujj sa gannaaw ndax ñoo yore mbir mi moom nguur lay wut moom yonent ko mbir mi ci yàlla la jëm moo koy teg fu ko neex bëgg ñu dimbale ko mukk du tax mukk mu négocier ba lislaam lekk lekk ko kaay ne sama gannaaw yéenay nekk xalifa yi <laughs> dégg nga mu mel ni affaire nguur mu ne mbir mi ci loxo yàlla la jëm ku ko neex la koy teg bu ko defee bay xaratu ne ko ndax danañu jël suñu bopp jébbal arab yi yàlla may la ndam mbir mi dem ci keneen ku dul ñun ñun nangu loolu ñu daal bañ ñoom banu amir bañ ñibbee wax seen ak mag mag ba mag waa mat naa ba ci réew benn mag mu màgget moo xam ne ñëwul woon ndax mageem ñu ne ko am na benn waxambaane bu bokk ci Quraysh bokk ci banu Abdul Muttalib dafa wax ne moom gaa yonantu la daf ñoo xoo pour ñu dimbale ko xaar ko nekk ak moom génn ko andi ko suñuy réew sallallahu alayhi wa sallam ku ko far rek la wut ndax xatoon na ci màkka ñu daal di bañ mag mu jël loxoom teg ci boppam ne yéen waa banu amir ndax man ngeen a dabaatal li ngeen def ndax man na mën nañoo defaat leneen ba xeggaat ci euh, dégg nga yonantu boobu de maa ngi gën ci ki nga xam ne sama bakkan mu ci loxoom loolu du waxi kese wax na dëgg ana fu seen xel yi nekkoon ba leen yonantu di gaaral boppam ba ngeen bañ rek laa wax de sallallahu wa sallam kuréel yooyu bañal nañ ko naka noonu mu commencé di xoo sang yi sang gu ñëw màkk rek mu toog a xool ci lislaam ngir lan ngir nga nekk ci gannaawam daal di ko dimbale daje na ak benn sang bu ñuy wax Suwaydu bun Saamit Suwaydu waykat la woon ko amoon xel bokkoon ci ñuy dëkk foofu ci Yasriba muy Medina aw nitam kaamil lañ ko doon xooyee ndax tedd gim tedd ak mën a way a way moo tax ñu koy tuddee kaamil wayu rafet la daan way dafa ñëw Màkka di haj ñu ne daf doon omra yonentu xoo ko jëm ci islaam su way dina ko est ce que nekkul ne lu ma yor rek nga yor yonentu ne ko loo yor mu ne ko xikmatu luqmaan xam-xami luqmaan laa yor wax yi rafet yonentu ne ko ay waxal ma dégg mu daal di wax way ma xam yëpp yonentu ne ko ah wax ji kat wax ji rafet la waaye la ma xam nag moo ko gën a rafet mooy alquran ji nga xam ne yàlla wàccee ne ko ci man muy njub di leer moo gën a rafet sa wax sallallahu alayhi wa sallam yonentu jàngal ko alquran woo ko jëm ci lislaam mu daal di jébbalu na wax ju rafet ba mu demee Medina yàggul fa tuuti rek mu daal di génn àdduna ci bu ans fa lañ ko reyee sallallahu alayhi wa sallam <coughs> gannaaw ga yonantu la leen sang bu ñuy wax Iyaas bun Muaz kooku ndaw la woon waxambaane la woon dëkkoon Yasrib mu ñëw Makka ci délégation bu ju boo xam ne nii ñoom ñëpp aw su lañ bokk kooku kenn la woon uba barab bañ ñëwee lañ doon wut mooy lëkkaloo Quraysh ngir ñu dimbale leen ci waa xasraj nda aw soo xasraj ñooy saar mujj jiga ñaari kuréel la ñu nekk Medina noonoo lool bañante lool xeex bu yàgg dox seen diggante waa aw nag ñëw lëkkaloog waa bëgg lëkkaloog waa waa waa Quraysh ngir ñu dimbale leen balaa xare bu la woon bañ ñëwee yonentu daal di yëg ne ñooñu ñëw nañ mu toog ak ñoom ne ndax duma leen andi loo xam ne moo gën li leen tax a jug ñu ne ko loolaan la mu a yàllaa ma yónni ci mboolem jaam yi ngir ma xooleen ñu jaamu yàlla buñ ko bokkaal ak dara wàccee ci man téere jàngal leen lislaam daal di jàngal alquran iyaas bun muaz na ko wallaay li ñu andil de moo gën li ñu tax a ñëw yéen nit ñi waa jële lim ñu andil moo gën li ñuy tax a benn waaye bu ñuy wax abul haysar anas bun rafi daal di jël suuf ci loxoom tubb ba mu fees ak sànni ko ci kanamu iyaas ne ko bañ ak li ngay wax nii rek laa wax de ñun lii andiwuñ ñu fii leneen leneen moo ñu fi andi mooy lëkkaloo Quraysh iyaas daal di noppi yonentu dem sallallahu alayhi wa sallam ñoom mi ñu dellu Medina lañ bëggoon a Quraysh farul xam te gëmuñ yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ demee Medina jamono ju tuuti lañ toog rek iyaas daal di génn àdduna nee nañ ba muy génn àdduna mu doon wax laa ilaaha illallaah allaahu akbar alhamdulilah di sabbaal waa mbir nañu sikk sàkk ne moom ba muy dee jullit la sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ga xaw Abu Zar al-Xifaar yi mi ngeen di dégg nga xam ne xadis ko moom dëkk yi wër Medina côté boobu la dëkkoon ba mu déggee ne yàlla na yonantu sallallahu alayhi wa ci Medina. mu ngi ko déggee ci xibaaru suwaydu ak iyaasu ah muyu ne am mbokkam nag ne ko demal makka nga xoolal ma waajooj ne yonentu la luy mbiram mbokk ma daldi di ñëw ne ko ah gis naa waajoo xam ne dafay digle lu baax di tere lu bon abu zer ne ko yow waxoo dara daal di bàyyi xibaar gam dëkk daal jël mbuusam ak xetam jublu màkka xamul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bëgg koo laaj kenn ndax bëggul koo laaj ñu xaaye ko yonent bi ba du ko mën a gisati mu ne may naan ci ndoxam zam-zam sax ca jàkk ja su soxlaa rek dem ci ndoxam zam-zam naan zam-zam ñam la naan la jàkk ja moo doon dal waayam Aliin daal di ko romb ne ah góor gi dafa mel ni kutumaranki kat ma ne ko waaw kutumaranki laa Aliin dalal ma ci këram ma ànd moom laajut ma dara man it ma ko dara waxuma ko dara bañ xëyee ma ñëwaat ci jàkka ji ah Alioune daal di ñëw ba ñëwee romb ma ne ma ah, xanaa da ngaa kër ga xanaa xamatoo kër ga ma ne ko déedéet xamatuma ko mu ànd ak man dem ci këram bañ ne ba ci kër ga mu ma lu la indi fii ma ne ko su fekkee su ma la xibaaree da nga ma nëbbal suma mbir ma wax la Alioune ne ko dinaa la nëbbal. mu ne ko ah damaa dégg na am na benn waay yoo xam ne fii la feeñ nee na yonentu la ma yónni sama mbokk pour mu wax ak moom waaye lam ma wax daal doyit ma ma bëgg a ñëw dajeeg moom Ali na ko yow jubal nga nii nga def de mooy mbir mi maa ngi nii ci moom laa jëm fu ma dugg rek na nga dugg foofu su ma gisee koo xam ne damay ragal mu lor la danaa taxaw ci benn miir mel ni kuy defar sama dàll rek yow wéyal yow ndax duñ xam ne man nga topp mu topp imam ali baax liñ dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it mu dugg ne yonent bi waxal ma lislaam yonent jàngal ko lislaam si santé mu jébbalu yonent ne ko Abu Zar sa jébbalu gi te nga dellu sa dëkk bu yàlla mayee nga daal di ñëw mu ne yonent bi maa ngi gën ci yàlla mi nga xam ne ni moo la yónni ci dëgg danaa taxaw ci diggu Quraysh daal di xaacu ne jébbalu naa ndax booba xaal ba jàpp na ko mu ñëw ci jàkk ja fekk Quraysh yëpp ngi toog mu ne yéen waa Quraysh maa ngi seede laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mu tudd ñaari baat seede yi gaa yi ne aywa dem ci kii nga xam ne dafa jeng ñu jug di ko dóor dóor yoo xam ne bëgguñ ci lu may rey ko Abbas daal di daanu ci kawam moom yàgg naa dimbale jullit ñi njëkk muy jébalu na leen tos kër ñeel na leen ndax ba ngeen da ngeen a bëgg a rey waaj yoo xam ne xifaar la dëkk. te yéen bu ngeen di commerce rifaar ngeen di jaar su ngeen ko reyee xam ngeen ne bu ngeen fa jaaree ñu bund xatal leen gaañi bako Abu Zar daal di dem ba mu xëyee dellu si waat ñëw ne yéen mbooram Quraysh ni ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lam waxoon démb waxaat ko gars yi jugaat daanu ci kawam Abbas daanu waat ci kawam wax lam waxoon démb kooku lislaam jaral na ko moom gannaaw ko yéenoon tuddee jeeg Tufaylu bun Amr ad-Dawsi kooku it ku tedd la woon waykat la woon ku amoon xel la woon moo doon njiitu daws daanaka mën ngaa wax ne président la woon ci <clears throat> dégg nga giiram googu dafa ñëw Makka balaa muy dajeeg yonent waa Makka dajeeg moom daal di ko nuyu teral ko teraang ngi gën a kawe na ko tufaylu ñëw nga suñu dëkk yi am na benn waaye bu fi feeñ nag te te nañu ñun ñëpp taqale suñuy mbooloo tas suñu mbir waxam jabar la mën na cee taqale diggante góor ak baayam mën na cee taqale diggante nit ak mbokkam mën naa taqale diggante dégg nga góor ak jabaram dañuy ragal mu njabar la njabar saw nit bul wax ak moom te bul déglu ci moom dara tufaylu nee waa Màkka dañu di ma jax jaxal ba ma mujj doog ne man du ma déglu ci waa jooju dara te du ma wax ak moom dem ci jàkka ja ci suba teel ga daal di jël. kay katon dugal ci nopp ya ndax ba ñu dégg wax yonent bi sallallahu alayhi mu ne ba ma toogee ba ma toogee ci jàkk ja yonentoo ngi julli ca kaaba ga ma jege ko lool yàlla bañ nag lu may dégg lu ma wax yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam la muy wax rafet lool taaru lool ma wax sama bopp ne ah toskare ñeel la ma man tufaylu man waykat laa ko am xel laa xam naa wax ju bon ak wax ju rafet ana lan moo tee ma déglu góor gii rek la muy wax bu dee lu baax la ma nangu ko bu dee lu bon la ma bàyyi ko tufayul ne ma daal xaar ba mu ñibbi këram ma topp ko ba mu demee ba dugg këram ma wax ko li xew wax ko ni ma nit ñi ragalloo waxam ak na ma jëlee carton dugal sama nopp ngir bañ a déglu waxam ak ni ma yàlla dégloo lenn ci waxam ne ko wax ma sa mbir mooy lan yonentu gaaral ko lislaam jàngal ko alquran tufeel ne maa ngi gën ci yàlla mosuma dégg wax ju wax ju rafetee ni alquran waaye mosuma gisin mbir mu mandoo ni alquran mu daal di jëbul nag wa ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah na yenoontu man ko am daraja laa sama nit sama mbooloo maa ngi di dellu ñoom danaa leen xoo jëm ci islaam ñaanal ma yàlla defal ma kawteef goo xam ne su ma demee dana tax ñu mën maa gëm yenoontu ñaanal ko yàlla ba mu demee ba jegaaw nitam yàlla defal ko leer ci karamam gu mel ni ab làmp mu ne yàlla jëlal leer gi def ko fu sama karam ndax damay ragal ñu ne lii ak metital la maanaam dañ ma ko ñu ayibalee ma ko rek de ndax kanam guy tàkk mel ni làmp ah nit ñi mën nañ laa ayibal leer gi daal di ñëw si etam wa mu ñëw xoo ci lislaam ñu daal di jébalu ah nitam ñu nag daal di yéex mu sax di leen xoo di leen xoo ba ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xare xandax ba gannaaw ba xandax jàllee gàddaay na fekk yonent bi mu ngi ànd ak juróom-ñetti fukki kër ci aw nitam ñoom ñëpp dugg nañ ci lislaam sallallahu alayhi wasallam yàlla nga koy dimbale nag mbooloo maa ngi jébbalu waaye gis nga ne léeg-léegi dafa am ñuy jébbalu ñoo xam ne yonent dafa leen muqaddamal ñoo ñu dem xoo ñeneen fii la fii la muqaddam commencé sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ga dimaat al asdi ci waa asdu la bokkoon ci yaman daf daan moccu ci ngelaw li la daan moccee boo dofee sax mën na mocc ba nga wér ba mu ñëwee Makka nit ñi dañ na ko Muhammad di ab dof la fexeel bul wax ak moom dimaat ne waaw góor gii ñu wax ne dof la su ma ñëwee amaana mën naa koo mocc ba mu wér rek laa wax de ñëw ci Muhammad ne ko man de damay moccu ndax bëggoo ma moccal la gaa ñi nee na ab dof nga yonentu dara yonentu ne ko wa nasta'inuhu man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma baadu ba yonent ne amma baadu rek mu ne ko waa li nga waxoon yonent def na ko maa ngi sant yàlla moom la ñuy sant di ko dimbali ko ku yàlla jubal kenn mënu koo réeral waaye ku yàlla réeral kenn mënu koo jubal maa ngi seet na yàlla rek ay kenn kenn du ko bokkaar ak dara di seet ne Muhammad jaamam yàlla yonent yàlla gannaaw ba ma sant yàlla julli si yonent mu ne ko ah waxaatal baat yi nga waxoon wax yi wax ji yéeme na yonentu waxaat ko ñetti yoon mu ne ko wallaay dégg naa waxi njabarkat yi dégg naa waxi gisaanikat yi dégg naa waxi waykat yi waaye mosuma dégg wax ju rafetee ni sa wax tàllal sa a ma jaayante yow ci lislaam boobu la dugg ci lislaam moom dimaat moom laa laaj maa rek di wax nag ne walam yezal dañut laakin waaye moom la lam yezal dañut yax foo di xeñtu ma waa si moom seen i xew-xew yarju ma nga yaakaar mene laaj ci àlaaw na ndimbal xëy na muttasimin yokkatul mbooloo moom gis oo leen ci lislaam nga gëm ko nga weddi ko du tee moote waaye nit ku tedd gum gis wala ci islam pour nga wuyu ko waaye nga dimbale diina joojum gannaaw ko nag fa bàyyee jaayante nag alkiraam yu tedd yi alansaara mooy waa alansaar fi la xabaati ci xaqaba ya xaqaba barab la foofu sa makka jaayante na faak ñetti mbooloo yoo xam ne yëpp na lañ nekk mu ne rabbi yow sama borom asbir yàlla nga sotti yàlla nga muuraal yim si ñoom waa bilal karami waameeg teraanga tawab teraanga yàlla nga ko taw ci waa alansaar waawun juróom benn la jaayanteeg la dal àqaba di fa àqaba al ula gu njëkk ga yonent bi sallallahu alayhi wa jamono haj dafa génn ab guddi ànd ak Abubakar ak yi ci ba muy dox la dajeeg ca àq ba ca minan ay góor yi wax mu jublu leen ba mu eggee daal di wax ak ñoom fekk juróom benn lañu woon ñoom ñëpp xasraj lañ bokk moo tax waa Medina ñu ci njëkk dikkal yonent bi mooy xasraj waa xasraj ñoom ñoo doon jaayante moom ci mbóot dégg nga ñenn ñenn rek ñoo ci bokk ci waa Aws juróom benn góor la yonentu dajeek ñoom ñëpp ci waa xasaraj lañ bokk góor ñoo ñooy kan ak kan asad bun zuraara ci banu najaar la bokk banu najaar ci xasaraj la ak am fu bun xaaris bun rifaata ñu ko daan ibnu afra afra jigéen la kooku ci banu najaar la bokk ak rafin bun malik bun ajlaan ci banu zureyq la bokk ak xutbatu bun amir bun hadida kooku ci bani salima la bokk ak uqbata bun amir bun nabi kooku ci banu haram bun kaabu la bokk ak jaabir bun abdulaahi bun riab kooku ci banu obayd bun xan min la bokk ñoom ñëpp ci waa xasra lañ bokk asaad ak am foog raafee xutbatu uqbatu ak jaabir juróom benn ñi la yonentu dajeeg sallallahu alayhi wa sallam daal ñoom xooleen ci lislaam fekk ñoom ca Medina dañ laan dégg yahudi naan yàlla dana yebal ab yonentu ci mujj ak jamono yonentu boobu bu ñëwee danañ ko topp daal leen rey yéen ñëpp nañu wonaat adak iram yonantu dajeeg mbooloo moom nag ñoom ñu ngi doon dégg wax jooju ñu ngi dégg mbiru yonantu bi mujj ñëw ci mujj ak jamono yonantu ne yéenay ñan ñu ne ñun de mbooloo lañ boo xam ne xasrat lañ bokk ci ñi nga xam ne ñoo lëkkaloog yahood yi yonantu ne ndax du ngeen toog moo wax ak yéen ñu ko en ah, kay leer la leen lislaam woo ci jàngaleen alquran ñenn ci ñoom ne xam ngeen ne wallaay kii mooy yonent bi nga xam ne moom leen yahud yi di tëkkoo fexe leen bu leen yahud yi jiitu ci yonent boobu ñoom ñu gaaw rek daal di ko nangul daal di jébalu daal di xamal yonent nag ne ko ñun de bañ nekk noonu gu tat gu metti moo fa nekk ñu nag aws xeex bu metti moo dox suñu diggante sonal nañu nag ñu ngi yaakaar yàlla boole suñ xol yi ci yow rek laa wax de ñu demee danañ leen xoos sa mbir gaar la leen liñ jëlee ci yow bu fekkee yàlla boole nañu tàppe suñ xol ngir yow wallahi amul ku la gën a tedd bañ demee mit na nag tasaare fa mbiram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tasaare nañ ko tasaare goo xam ne doo dugg benn kër ci këri mit yi lu may mbiru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nañ ko moom loolu mooy bayatul aqaba gi njëkk ga juróom benn yooyu la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa waaye boobu nag gaa yi duñ ko boole ci bayatul aqaba naa al ula ak saaniya fekk euh, bii mooy bi njëkk ba ñuy wax ula mooy jaayanteeg ñaareel ga moom la alaaji maa leen waawul juróom benn la jaayanteeg la njëkk gi wa baadu jaayante naag yebun fukk ñaar foofu la ñu am tey gannaaw ga nag yonent bi sallallahu alayhi wa ja ci at ma ci topp mooy ci déwén ca xatam fukk ñaar ci yonent gi ah ci la demaat Aqaba foofu jaayante faak fukki góor ak ñaar dégg juróom benn yañ waxoon léegi ak yeneen dégg nga juróom ñaar muy fukki góor ak ñaar la jaayanteeg foofu ci àq ñoom ñëpp mérite lañ bokk juróom-benn yi ñu waxoon jaabir rek ci teewut bu na Abdullah ibn waaye juróom yëpp ñëw nañ juróom-benn yi waxoon yokk ci Muaz bun Haris ibnu Afra banu Najaar la bokk ci Xasraj ak Zakwaan bun Abdul Qays banu Zureeq la bokkoon ci Xasraj ak Ubaadatu bun Saamit ci banu Xanm ci Xasraj ak Yazid bun Saalaba ci. xaritu banu xanmuy la bokkoon ci xadraj ak abbas bunu ubaadata bu nadala ci banu saalim la bokkoon ci xadraj ñaar ñu mujj moom ci aws lañ bokk moo muy abul haysam bun tayihaan ci banu abdul ashar la bokkoon ci aws ak uwaym bun saayida ci banu amru bun awf ci aws la bokkoon ñii juróom-ñaar lañ muy muaz ak zakwaan abul haysam ak ooy min ak ooy mu bun saida muaz zakwaan ubaadatu yazid ak abbas ak ooy ooy haysam ak ooy mu rek ñoo bokk ci aws dégg nga ña des ñëpp ci xatara lañ bokk ak juróom ñi nga xam ne ak juróom benn ya ma tuddoon ba mu des jaabir bun abdullahi bun riyaab ñi ñoo dajewaat jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la gaa yi tuddoon bayatul waaye xam nga ne mooy ñaareelu jaayante ga rek de yonentu léeg-léeg ñoom ca Aqaba ca Minan ñu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bayaatu nisaay mooy ne alquran waxee ni ñu jaayante jigéen ñi dañoo jaayante ak bi buñ bokkaale yàlla dara buñ sàcc buñ jaaloo buñ rey seeni i doom arab yi rey seen doom yi jigéen buñ andil seen jëkkër yi doom joo xam ne seen jëkkër yi juru ko dégg nga muy ay ay fen yu ñu indil seen jëkkër yi mooy bu leen indi ay nar yoo xam ne yeneen ko fent bay na ay diikum wa arjulukum mooy dem wax bay na ay diikum mooy wax yi ngeen wax ne kii ñoo ko jur yéen a ko jur fekk jëkkër ji juru ko wa arjulukum mooy ngeen génnee ko seen awra yi doom jooju ngeen génne seen awra yi wala boog dem di foonanteeg yeneen i góor mooy bay na ay diikum ab génne leen doom joo xam ne mu ngi jugee seen seen diggante tànk yi loolu mooy al jurukum bu leen indi daal doom joo xam ne seen jëkkër juru ko askan ko ko yéen bu leen dem di njaaroo ba am doom yonent ne bu leen ma mooy ci njëkk lii laa jaayante yéen képp ku ko matal tiyaabam yàllaa ko gàddu ku def benn nag ci maaye ko buñ ko mbugalee ci àddina loolu dana faar bakkaaram motax bo defé dara ñu gëtin la ci aduna bakkar ba faaru na bu fekke yalla daf laa suturaal nag sa mbir day delu ci yalla bo dajé ak yalla bu ko nexé mu mbugal la bu ko nexé mu bal la loolu la jaayante fuk ak ñaar yi nga xamni ñoko mujjë ko mujj ñëwal ca xaba ah ba nga xamé nak nag Medina mbiram yonentu commencé na wasiw jaayante nak juroom ben mbiram tassare mbir ma ci Medina juróom yooyu daal di ñëwaat ànd ak yeneen juróom ñaar muy fukk ak ñaar juróom benn yi jaabir rek moo ci des juróom yooyu ñoo ñëwaat ànd ak yeneen juróom ñaar muy fukk ñaar ñu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël Musab bunu Umayr daldi di ko xebal Makka muy muqaddam bi nga xam ne moom la yonentu njëkk nii ngir mu jàngal leen diine jàngal leen alquran demoon na ba waa Midina al muqri lañ ko doon tuddee jàngalekat ba ba ñëwee moom Musab wàcc ci kër Asad bun Zuraara ci ñi nga xam ne ñoo jaayantoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaari jaayante yëpp ci la bokk ñoom ñaar ñu ànd di tasaare lislaam ci Medina yàlla may leen fa ndam nag ba mbooloo mu bëri dugg ci lislaam bis dafa jot Asad bun Zuraara daal di génn. daal di dem ci waa banu abdul ashal ak waa banu safar dugg ci benn tool boo xam ne daal ci tool yi banu zafar la bokk ñu toog ci ab teen bu ñuy wax biiru maraq su ko defee <clears throat> ña nga dajaloo nag ñenn ci jullit ñi toog fa fekk Saxd bun Muaas ak Usayd bun Xudayr jamono boobu dugguñ ci islaam ñoroon sangu seeni nit ci banu abdul ashal bañ déggee ne asad bun zuraara ak jullit ñi ña nga toog ci seeni ëtt ah sax du ne Ousseydu demal ci ñaari ñaar ñi nga xam ne nii dañoo ñëw pour dofloo suñu borom xel yu gàtt yi génn leen seen diine ji nekkoon wax leen ñu génn suñuy kër ak seen diine ji nga xam ne moom lañ fay rek laa wax de man asaan sama nit sama doomi tànt la moo tax mënu ma koo daq waaye bu dul loolu maa koy dàqal sama bopp Ousseynou daal di mar jël xeejam wa daal di ñëw ba jàkkaarloog ñoom ba muy ñëw nag asaan ne Musab kii bi ñëw mooy sangu nitam bu ñëwee na nga ko oote tax soo ko ooyee ba mu dugg ci lislaam rek ñu bëri danañ jébbalu Musab ne bu ñëwee ma wax ak moom Ousseynou daal di ñëw xas ne lu leen indi suñu kër yi da ngeen ñëw pour loo néew borom xel yu gàtt yi jógee leen fii rek laa wax rek bu fekkee soxla ngeen seen bopp bu ngeen bëggutu dee rek jóge leen fii Musa am na ko tee ngaa toog soo toogee nga déglu buñ la waxee nga gërëm li ñu wax nga nangu bu fekkee bëggoo lu ñu wax nag ñu ah, ñun ñu jógee fii rek de mu ne ko li nga wax dëgg la daal di samp dokkam ba daal di toog musabo ko ci lislam jangal ko alquran mu ne maa ngi gën ci yàlla musab balaa ñuy pare jàng alquran ñi lañ xam ne dana jébalu ndax xaram ngaa ngay melxeeti di leer nañ ñi bañ jàngi alquran ba pare mu ne kaw téef ana lu gën a rafet wax ji ku bëgg dugg seen diine ji nu muy def ñu ne ko da ngay sangu daal di laabal séere tudd wax asadu an la ilaha illa allah wa asadu anna muhammadan rasulullah julli ñaar rek mu jug daal di sangu sol yére yu laab wa ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan ñaar rak ba na leen sama gannaaw am na góor goo xam ne sax du lay wax su leen toppee kenn ci nitam du des danaa fexe ba ni ko ne sax ah wax naa ñaari góor ñi ngi ma yónni woon waaye daal gisuma ci ñoom benn problème dama ne leen jug leen fii rek ñu leen danañ fi jug te dégg naa sax ñu ne banu xaarisa ña nga génn dem ci asad bun suraara pour rey ko te xam nga ne bu bun suraara sa doomi tànt la liñ bëgg mooy toroxal la fecc sa kullëre rey sa doomi tànt gi te doo ci man dara loolu lañ wax saadu daal di jug mer lool ndax araab yi ku leen xeeb rek leen bañoon jël xeejam wa dem ba fekk Ousseynou euh, euh, dégg nga ak asaan ñi asaan ñi ngi toog jàquñ tiituñ ah mu xam ne dañ koy pexee rek de dégg mu ba mu dem ba fekk mu Musab lay wax ak asaan ñi ngi toog mu xam ne Useydu da koo pexee rek pour mu déglu ñaar ñi ba mu ñëwee yaa Abu Umaama muy Asad bun Zuraara wallaahi bu du mbokk gi dox suñu diggante konoon ñememoo def lii ñëw ba suñu kër yi di ñu indil wax joo xam ne bëgguñ ko Musaab daal di ko wax la mu waxoon kële ne ko tee ngaa toog nga déglu bu fekkee lañ lay wax neex na la nga nangu ko boo ko bëggul nag ñun ñu jugee fii duñ la teg loolu naqari mu ne ko wax nga dégg moom i samp xeejam ba daal di déglu mu gaaral ko lislaam jàngal ko alquran mu ne wallaahi balaa ñuy pare lañ gis kanam nga di melkati melkati goo xam ne xam nañ ne dana tuub ba alquran ji pare rek mu ne waaw ku bëgg a dugg seen diine ji ni muy def. ñu ne ko dafay sangu laabal yéreem wa ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna mu def loolu jël xeejam wala ba muy dellu rek ba ko gaa yi gisee ne ah kanam gam demee woon ak bokkut ak kanam di muy dellu see Ousseynou it ba muy dellu loolu la ñu waxoon bu ko defee nag Saadu daal di taxaw ne yéen waa banu Abdul Ashal man maay kan si yéen ñu yaay suñ sang ñun ñëpp yaa ñëpp xel yaa ji gën barke bakkan mu ne fekk mu leen yàlla ak yonentoom na naa sama bopp wax ak yéen duma wax ak seen góor ñi duma wax ak seen jigéen ñi lu may ngeen duggu ci islaam balaa ngoon di jot rek ñoom banu Abdu Ashal yëpp tuub nañ amul góor ak jigéen ba mu des Usayrun Usayrun nag moom bañ na du tuub ba keroog xare waxoon rek ci la dugg ci islaam dem ca xare ba ñu rey ko mosu sujjootal yàlla benn sujjootaal dina la jëm amalun qalilun wa ajrun kabirun loolu la gaa ñi di wax lam jëf tuuti na gaa waaye tiyaaba gi bëri na julli keroog ba mu tuubee la dem xare Uhud ñu daal ko rey mu dugg aljana kon mbiram yonent ngi commencé am doole nag mbiri na gaa yaa ngi tuub mbooloo maa ngi bëri musaab sax Medina ci Asad bun Zuraara di xaw nit ñi ci islaam dem na ba nga xam ne doo dugg benn kër ci waa kër Medina ci waa Medina foofu lu mooy rek am na ay jullit muy góor ak jigéen ba mu des banu umayatu bun zaydu ak xatmatu ak waayel ñetti giir yi moom ñoom lislaam duggagul seen i kër ya waaye ñu dul ñii rek lislaam dugg na seen kër ya ndax ñett ñii xaysu bun aslaat ñii di wax abu xaysu bun aslat waykat la woon moom lañ toppoon te moom bañ na leen dugg ci lislaam waaye xaysu moomu keroog xare xandax ci atam juróomeel ci gàddaay gi ci la moom it dugg ci lislaam ñoo ñëpp daal di dugg ci lislaam bu ko defee nag ci la Musab daal di dellu Medina ba nga defee ba nga ne am nañ doole nag euh, Medina ci la dellu Makka xibaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doole ji nga xam ne léegi am na Makka ak huyi gu waa am na Medina laa bëgg wax ak huyi gu ko waa Medina wuyu caatam ñetteel ma boobu la nag la yonentu waaj waa sallallahu alayhi wa pour gàddaay dem Medina nag waaye balaa boobu am na beneen mbooloo mu ñëw jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Aqaba dégg nga jugee Medina muy mbooloo mu bëree bëri loolu mooy bayatul Aqaba saaniya waaye mooy bu ñetteel wa ñeem foofu beneen yoon ñu jàng jaayante googu balaa ñuy dugg ci gàddaay gi nag hada yuridul islam asalaamtuma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh